Ah. un avocat qui a été constitué par euh, le sieur Sidi Diop que j'ai défendu. Alors nous étions cinq avocats à l'avoir défendu aujourd'hui. Nous venons de finir euh, les plaidoiries. Vous étiez dans la salle, en tout cas certains parmi vous étaient dans la salle. Et vous êtes savoir que Madame le procureur de la République euh, a pris la parole en demandant à ce que la loi soit appliquée. Eh nous avons pris le ballon au rebond en disant au tribunal que la loi devrait s'appliquer de cette manière. Alors, c'est un dossier dans lequel le sieur Sidi a reconnu les faits d'avoir eu à conduire sans permis. Et vous avez vu qu'à la barre du tribunal, il a présenté ses plates excuses. Mais il a pris l'engagement solennel de ne plus de faire les même faits, les mêmes actes. Les mêmes actes n'allaient pas se reproduire. Alors, on va prendre toutes les dispositions nécessaires à la délivrance d'un permis de conduire pour en règle. Les avocats aussi qui ont eu à plaider à mes côtés ont plaidé dans le même sens, la clémence. Parce que nous ne sommes pas les avocats des diables aussi. Euh, nous sommes là pour défendre notre client dans la mesure du possible. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est qu'une application bien faite de la loi devrait se faire quand même à son profit. D'autant plus que je l'ai dit tantôt, il a reconnu les faits, il a présenté ses plates excuses, étant entendu que c'est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 mais également sa modestie. Et en l'espèce, je l'ai dit tantôt, nous euh, pensons que la loi devrait s'appliquer de sorte que, en pareille situation, le prévenu puisse quand même bénéficier d'une application bien vers la loi pénale. Pourquoi pas un sursis et, tout à l'heure, le président du tribunal, en tout cas, a eu à mettre l'affaire en cours d'audience, de délibéré, donc sera vidé dans les quelques heures. Et à partir de ce moment, on va aviser.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 comme ñëpp dafa joxe papier yi te à la barre vraiment macha allah dafa am taxawaay bu bu rafet bu bu bu baax bu correct nee ci kaw loolu dañ ko jéggal du amati incha allah rabi. waaw ah, permis boobu euh, dañ ko ko joxoon Gambie la lañ ko defaree Gambie lañ ko defaree euh, permis boobu may na ko aussi mu dawal oto fu mu ko neex mais vous savez aussi fii dafa am législation boo xamante ni c'est très particulier dafa ay conditions yoo xamante ni permis noonu nga ko war a yoree pour mën a dawal ici au Sénégal de toutes les façons euh, soriwuñ si point boobu ce qui est constant c'est que amuloon permis parce que permis Sénégal fii euh, gendarme bi moom lañ ko laajoon mais du moment amu ko dañuy jàpp ne conduite sans euh, sans permis bi encore que une fois permis bi muy wax nekkuloon ci moom dafa ne permis bi dafa amoon ku ko sàcc effectivement wax na dëgg amoon na permis international mais dañ ko dañ ko sàcc ci kaw loolu aussi malgré tout quand même oto bi sans permis biñ ko arrêté aussi nee na carrément bu doon permis te assurance bi euh, biñ ko laajee euh, gendarmerie nee na assurance bi baax na mais finalement bi ñu defee réquisition laaj assureur bi dañ ne assurance bi baaxul. jërëjëf merci beaucoup. maa ngi leen di gërëm jërëjëf